nañ cant tey ci li nu am màggal gu mag gi la nu am mooy bisu cant kii ngërëm digal la nañ jóg jëfe ko nañ cant tey ci li nu am màggal gu mag gi la nu am mooy bisu cant kii ngërëm digal la nañ jóg ko sëriñ bi nee na lu mu am ci bés bu mag bi la ko am ñun ñi ko yaakaar nu am ci lañ ko am kon jàpp ko nee na budul woon bi le kon sunu yaakaar dina tas te luñ ci sàkku duñ ko gis woon ci ñun ñu fonk ko bis booba moo fawqa jihaad moo fawqa yit lu dul jihaad te loo fa sàkku fii jihaad yëgal ne loolu am nga ko màggal gi moo di ndigalam war nañu xam ay ndigalam ba luñ fa jëf muy ngërëmam moom ko saytu tee ko nañ lu jàng alxuraan tey jàng diiwaan ak ñaan di bernde ay lekk ak naan moo war ci jàpp ko nañ farlu jàng alxuraan tey jàng diiwaan ak ñaan di bernde ay lekk ak naan moo war ci jàpp ko jiital ci bis gàttandu ko talal ci bés màggale ko tafal ci bis gunge ko ko mooy war ñu fonk ko ku fonk kon nga ko doo mu ñëw nga ko ku fonk ka ngit gunge ko doo mu dem nga tàggu ko kon nañu waaj nga tëndu ko te bu ñëwee nu fonk ko te buy demit ñu gunge ko ndigal li moo di xam nga ko ñun ñoo fi am lu kenn amul Seex Muntaxa nu xëy defal nu tey lu kenn amul moo tax ñu man li xam nga ko Seex Muntaxa ni màggalam ci sunu màggal la ko lëm na du ñaar mooy màggalam moo tax ñu man li xam nga ko na ko yàlla yokku wér ak fan wu gudd muy defar yéen murit wi yal na wér ne leen amin ñu bokk ko